tey mu nekk bés boo xam ne bii dafa benn la ci biir anal yi benn bés la boo xam ne bii dafay màndarga tey loo xam ne li dañoo defoon ne ay léeb la tey mu nekk dëgg ndax dinaa farme bi muy ñëw fii en 2014 dañ doon jàpp ne eh, xëy na ay dóori xeer la ñu bëri loolu ñu daan wax ak ñu fi yàgg ak may leen ay ñaari weer ak ñun ñuy seetaan vidéo yi di gis ay remise de voiture Congo di gis ay fondateur ñu naan est-ce que lii nit mën na fa àgg tey ñuy dox te sunu borom def sutura ci mbaaxam ak yërmandeem fondateur génne Sénégal génne Afrique de l'Ouest pour la première fois fan la génne agence Touba muy doomu waa Touba. muy fierté si ñun di mbégte boo xam ne bi tey dañ ko bëgg a màndarga bi àddina si yëpp xam ne tey am na nu ndam ñuy sargal di delloo njukkal di remercier administration Dina Farm Sénégal. ci njiitu monsieur Franck monsieur Dewo Katongole ak monsieur Modio ak seeni i staff ak personnel ba fa nekk yëpp ñoom Baye Zal ñoom euh, Jési ak ñam nga xam ne xëy na miinu ma leen wala mënu ma citer seen tur yëpp mais tey ñu ngi remercier ñooñu parce que liggéey bi équipe la benn nit mënut a dem. te comme ñoo yàlla dafa def ñoo nekk ci njit ñoo nekk ci kaw ci direction Sénégal ñu ngi leen di amel njukkal bu baax a baax a baax a a baax. waaw maa ngi am mbégte di sant euh, sama sëriñ sëriñ Touba Khadim Rasoul di jaajëfal bu baax euh, maam Thierno euh, Birahim Ndama Daaru di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall di sant bu baax aussi sama famille di sant aussi ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal liggéey bi di sant bu baax monsieur Ndong nga xam ni vraiment il se donne nuit pour euh, Dina Farm Touba gën a jëm ci kanam di sant aussi euh, ñi nga xamante ni ñëpp ñi ngi liggéey ak société bu Dina Farm monsieur Mbaye Dina Farm Saint-Louis soxna Ndeye Ndiaye ñoom ñëpp teew nan euh, ak membre yi nga xamante ni aussi ñi ngi liggéey ak société bu Dina Farm nga xam ne ndam li du ndamul monsieur Sall rek mais ndam la boo xam ni pour tous les distributeurs liggéey nañ ci liggéey yu am solo moo tax tey vraiment dañ leen di sant di leen gërëm ci liggéey bi nga xamante ni ñi ngi koy liggéey ak entreprise bu Dina Farm. waaw lii mën na ni rek ndorte la mën parce que qu'aujourd'hui suñu vocation moo nekk euh, sauver l'honneur de Dina Farm euh, international rawatina sax ci côté soxna yi nga xamante ne ñi ngi ciy liggéey toujours dañ koy faral di wax ci salle de formation. société bu dina farm ñëw na pour xettali nit ñi ci seen wàllum koom-koom ñëw na également pour xettali nit ñi ci seen wàllum tawat mu nekk société boo xam ne bakk bi mi ngi nekk un monde de santé d'abondance et de liberté. fexe ba nit ki muy am wér ci wàllum complément alimentaire bi nga xamante ne mi ngi koy jëfandikoo euh, comprimé siro ak xeetu kafe Euh, nit ki aussi bu tawatee ñu mën ko defal aussi ay traitement au delà de ça man ngeen signer un contrat de partenariat avec seen société Dina Femme di ci liggéey di ci tedd seen njaboot di ci tedd ëllëg mais aussi ngeen am seen société bopp dafa mel ni daal da di créer Euh, seen entreprise ci biir système société bu Dina Farm. exactement Dina Farm dafay jouer rôle prévention ak rôle traitement bu baax parce que produit yi ñu yore dañ ko classé fi ñu classé les denrées de première nécessité fi ñu classé meew bi ak suukar bi foofu lañ classé donc euh, les compléments alimentaires de Dina Farm bu fekkee ni nit ki dara jël ko mën na koy jëfandikoo donc dina sa prévenir à une éventuelle maladie en cas maladie aussi nit ki mën moo xam diabète la tension ou bien boo xam ne mën na ko Dina Farm mën na ci